bismillahi arrahmani irrahim mustafilun mafaalatun faaxilun àndaar la jooj xalil ma succaa tireer loolaa waral ma jóg di ca way saa sëriñ cheikhil xadiimu moo ma defal wayu leer na ngeen ko way bu leen bañ a def ay géwél maam sàmba jaara xam na ne daam doy na géer seex baabakar jëneeri wayam dootu fay kay reeki njàmme lañ fi wayoon dootu réer jantum ngëñël ba fenke fi noonu laay wayal te déeti man ma jekki di taafeeri weer ca aama sharci lañ ko gis ay mbiram boobee ba tey jigéen juratul googu góor yow soxna jaara yaa jara way xam nga ndam jéeg jëpp ay xandeer lañu am am nga oor sa doome tax mbusóobe ña raw seeni kem sa doom sigil na bokki sëriñ mbakke moor tuubaa damoo na dam ma ko def ab dalam xabrum bi tax na waa ju fi ñëw xol ba leer di suuf su mës la daloo ay xërëm mëseefu ko sobel ci deret jun fi tuur donnantewul ci baaye ki ndey ab dëkkam xëccoowu ko ki ardo deful daani buur bàmbaa jëkkoob dëkkam ku ko bañ bul fa ñëw mooy def ci aw nitam lu xamul fii ba keer mbooloo mu ànd gëm ko di jël seeni nos jébbal ko ak jagooma amul peeyi buur bul fas ne ay pexe ko waral nanga ko gëm giñ naa ne aw nitam mënuñoo xànd réer bul fas ne ay pexe ko waral nanga ko gëm giñ naa ne ay nitam mënuñoo ànd réer yàllaa ko jox mayam gi mu yor ab julit day nangu ab dogal lu ko mooy xol ba xuur ndax xam ku yewwu sax war a gis ci mbiram luy tax mu xam ne ahmadu day waayi buur càmmam gi gaaña téela na ñëw ñépp a jof ña gàntu ba bàmba ñëwee ñépp a ruur parlum yu lëw yi moonu yafal gaaña bañ parlum yu réew yi seen juri xol dootu suur bàmbaa di waane mooma moo mën a def ciw nitam lu awliyaahu laahi mënul moo di góor cawam sa sin ba fii nu taxaw kenn jëmul jaw falfara rëbbam bi mu jam ko diir atum sasin ba fii nu taxaw lam waxoon saa yun xëyee mu gën di nu bir ak di leer mboolem ñi yàlla may gëti xol ñépp a gëm bam dellu see ña am gëti xel ñépp a buur leeram yi këf na ruu yi fi won ñépp a ñëw sébbub lëndëm la faw mu am ay gunóor xiiwal yi woona a jëmm yi tey kenn desul lem guñ ubul du mucc ci ay xonxoneer donab yonen la boo ko moyee mooy yonen ku moy yonen ci ay ndigalam moy na buur dànnub yoneen la boo ko xëyee am ndawal jox leen ko seen leget yi bu leen jiima diir kuy diir itam du jam lu du cam cib soxam jam cam taxul sawaa kër añ baa ñu reer la bamba am fëri wi duñ ko xam yow mala xiyaam bu yàlla ñëwee lépp leer lam ngoore woon fëri arab yam demoon gàcceel na géej te jéeri xamul lam fa ngoor lam daj gabong wurus du ko daj cib tëggam balwaaye buur xaro yonenam lañ ko joor day xiif di mar di sooñe ca kaw ab deram bañ fal ko foofa faf ko tofal mbooti buur badaam di nos wurus wa di way yonenam rab yaa ngi xiiru wër ko te géej gaa ngi riir lay mab bi doj asal yëngalul aw fitam nasaraan yu jur gu boy lañu muy gargu góor bu ngeen di tëkkaleeti di lim ay sëriñ na ngeen ko ber wurus du limook ay xandeer ber leen ko dóor a lim ki fi ceec aw param du tax mu làqi ndam cëlefom naari góor ber leen ko dóor lim ku fi naw ay biddiw bu jant nee jalañ sa biddiw yëpp réer gam-gam le jaaduwul ku fi naw ab sëriñ na wàcc te dem gabon te ne dem il na def ca yooya dun la fa seex bamba def ci wéetal ak wayal yonenam wayu leer na wàcc dem gabon na def ca yooya dun la fa seex def ci wéetal ak wayal yonenam wayu leer bu dellusee fi nun te ngëmam yàquwul nu jàppe ko sëriñ fa bawal ak kajoor bu dellu see fi nun te dawul saalitul nu jàppe ko sëriñ bu nu woo ñépp buur dem del si gaa ngi nii ku ko moy koo fi naw réew mii la riigu won wago suy añ ba suur kon féete leen ndamam li mu jël jox nu tey muy màggaluk safar gi waral fépp riir man féete naa safar di teral ay ganam te déete may nowel fase naa wépp weer su muur gi wéy na kenn gisatul am ke mam gaañam tasee la ëpp ci dun bépp muur gaañam tasee lajam rëbu ciy wéy li man man mii fi ñëw te fekk mu dem maaka réer gaañam tasee la jam rabu cey way li way man mii fi ñëw te fekk mu dem maaka réer jooy naa ko jooy yu xol yu du dog way li man ŋaawaaw yi sax jutuñ li ma jooy googu góor malank lang-langal duma baal wom sa sin danan la yoo musiba mu réy mi ma joor kattan gu réy ga Bàmba moo waral mu xattanoon amaanatulaayil xadiir mboolem ku mas na cas bi la yéen siggiwul daam rekk moo ko yëkkati wey lii du duur lef mam xawoon ba tey aji dox jóggiwul tànkub jëfam ca moomale lef bul ko jéer lim jëf ci diine soo ko nattoon ci atam nga wax ne am na junni bi at dóor a buur ci at yu niiw la jommali mag ci matam sëñ tey ba sill seere la caag waa ko joor sellam nga ci magam lañu gis ci rawam kuñ lañ bëtëg ndawam ku duk yow dootu leer far leen ca waada woy wubi kay wub na kaw te wuub na làmbi suuf yi ba jël seeni cuur ku suur won suqam yi mu teg cib kayam sab jëll bir walaayi kiley waada piir ku tol ni yib rafaal ku mu cib ëtëm waree su koy tëgaale bu leen weddi buur ku tol ni yib rafaati mbégam góoñ a kay mbër mum taseel kudul mile mbër doo ko yiir ma del si sant may gi ma seex bamba may géwél na sax ci way bu xamee ngën jigéer solay tagam wi waaju ko mos doo selaw man maa ngi mbel mbeli niru aw xandanduur soloy tagam wi kum ko mosal doo nelaw maa dàqa foog su ñël yëfa ndar ak fa mbuur soley taggam wi moo ma yebal kër yónneen ziyaare naa yónneen soog a xaj yooni xeer soley taggam wi moo ma yebal kër yónneen ziyaare naa yónneen soog a xaj fooni xeer soley taggam wi tax na ma aj sëñ samat moom Cheikh bu moo ma yebal yoon wu leer soley taggam wi moo ma defal ay tabax moo tax ma fàtte làcc ga tax ak yu nduur danaa ko way ci fatxu bu réy bi ma may ngir moo ma téewandeelu di xaaraani buur man baas du may faseeki taggam moo waral mu xëy ma jox ngëneel yu xajul cim di joor te xawlu naa bi salli alal Mustafa rabbi te dolli may ki ma may wayu leer allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wayu yi maa ngi ko def ci ngoonuk altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci shahbaanu weer wii shahbaanu am tachin yemoog la vingt quatrième mois deux mille vingt mooy bii nu nekk waaw